ñu doxale ko ko it noonu lañ koy doxale waaye nag na àgg ci ñamu jëm jëkk gàllankoor di am gàllankoor wax nañ ko ba tey mën naa doon tawati faatu mën naa doon fara faatu sax mën naa doon bari ay bor ba nga xam ne bu fayee du matal mbaa bu fayee yem ca kepp bu gàllankoor yi xasi am rek te jëluñu woon kër googee nga xam ne moom la xubusle jeex na te su ko mën a jël seeti walaw kaanat doonte nekkoon xubusan dik xubusle xalaa wala dihi ci doomam ja ak saxiir ji aji ndawe jaasat kon dagan xiyaasatuhu ak làqalam maanaam ak téyeelam la xooñeel ko ilaa an yabluga ba ba muy kàllafe wa yukriha naka luyeel la xooñeel ko wala yaskunuha te du ko dëkkee ndax fay lam ya daa neem bàyyiwut sukkunaaha ak dëkkeem xataa maata ba mu faatu ba talat kon yàqu na waaw nee na sa doom ji ndaw boole woon kër gi xubusle naa ko ko mooy sama doom ji day xubusle naa ko kër gi fekk muy gone mën nga koo téyeel kër ga waaye nag bul ci dëkk da nga koy luyeel rek sàkk koy seere bi nga xam ne moom nga ko xubusle léegi nag bu fekkee day daa fekk muy sa kër bu dëkkuwaay nga wéy ci nag di dëkk rek noonu ba gàllankoor am muy faatu mbaa siis ak yu demee noonu su boobaa xubusle nga yàqu na waaye ni nu ko waxe woon ci gannaaw rek bu fekkee ne lépp la dëkke mbaa la ëpp ci kër ga ne wéy di ko dëkke ba xeetu gàllankoor am moom xubusle ga mbaa bu doon ak maye lépp ay yàqu bu fekkoon ne nag la ca gën a néew la dëkke kon moom lépp ay baax ndax dañuy topp la gën a bari te la ca gën a bari dëkkiwu ko bu fekkoon itam genn wàll ga la dëkki woon bàyyi genn wàll ga genn wàll gam dëkki woon rek mooy yàqu waaye genn wàll gam dëkkiwut du yàqu wa inin xarada ndeem fër na fër nag mooy ndeem a jeex man ka nga xam ne xub bi sat xubbuslee foon na kër ga xale yi ci moom man mi daa mi max naam mbooloo daa mi max naam ñañ xubusle woon ca ñoom ndax du kenn rajaxat kon mu dellu moom kër ga xubusan dik xubusle xalaa aqrabin naasi ca ka gën a jege ci nit ña bil mu xabbisi ci aji xubusle ja yowmal marjixi ci bisub dellu ba daa wax ne bu xubusle woon kër ga ci misaal Ahmadu Jóob ak ay sëtam maanaam daal wàllu gu mu ràññeel la ne ñoom la xubusle kër gi ñu topp leen nag ñu dee ba jeex kenn kenn desatu ca kon dañuy seet ñi ko gën a jege ci mbokk ku ca gën a ñàkk ñu daal koy jox kër ga mu nekk ak xubusle ca moom kookee gën a ñàkk tey mbokkam waaye moom mi xubusle woon moom lu yàgg-yàgg kër ga du ñëwaat ci moom te sax lu mu lor loru du ca mën a dëkkaat mbaa jariñu ndax génni woon na njariñ la yóbbu ci moomee lu yàlla bu fekkoon ne nag kër ga da koo xubusle ci wàllu goo xam ne daanaka li fekk addunay tukki du jeex mel ne way ñàkk ñi rek xam ne ràññeelut way ñàkk ñi rek la wax kooku moom dal nay leer ndax lu yàgg-yàgg daanaka ba addunay tukki moom ñu ñàkk ñu ci war a féete mën a am waman axmara ku yaral rajulan waay xayaatahu diru dundam daaran kër rajaxat kon mu dellu moom kër ga milkan dig moomeel li rabbi xaa ñeel boromam baada mawti saakini ci gannaaw deewu aji dëkke ja wa kasaalika naka noone in amara ndem yaral na xaqibahoo sëtam ya fan xaraboo te ñu fër mooy te ñu dee ba jeex alxumra moom dañ ko daan jëfandikoo alxumra mooy nga wax nit ne ko li fekk yaa ngi dund may naa la nga dëkki kër gee nga ko takk rek diir ma ngay dund ba tey mën nga ko ne li fekk yaa ngi dund yow ak say sët kër gee féetali naa leen ko ngeen dëkk ca dina jëriñ dund kooku nag moom ka nga wax loolu bis bu faatoo bu dee moom dong nga kër ga ñëwaat ci yow gis ak moomeel bu dee yaa ngi dund nga jël bu fekkee nekkoo di dund ñi la war a doon daal di koy jël bu fekkee da nga ko waxoon yow ak say sët mu dem ba faatu ay sëtam dem ba jeexit kër ga ñëwaat ci sax moomeel bu la fekkee ngay dund nga jël bu la fekkee bu fekkee fekku la ngay dund say doon daldi mom kër ga moy fa il mata dem faatu na al mo amru aj yar lay ja yow ma isin ci bis bobé kanat kon mu nek mom kër ga milkanti ak momel li wara sati yi ñel way doonam yow ma mawti ci bisu faatoom ga ndegam kam féetale woon kër ga ne ko li fek yaa ngi dund dem na ba faatu te moom mi ko waxal loolu itam dundatul kon ña ko war a doon léegi ñoo moom kër ga wa man maata ku faatu min ahli hubus ci ñooñ hubus le ga fa nasibuhu wàllam xalaa man nekk na ci ña nga xam ne baqiya des nañu di dund boo ràññee lee ne diw ak diw ak diw ñoom laa xubus le nangam lii bu ci amee ku faatu dañuy wax ne kon ña fa des rek ci ñam waxal ñoo jël wàllu ka faatu mu ña des di dund rek ñooy moom wàllu ña faatu wa yuusaru def na ëfal way def na yaatal fil xubus ca xubus le ga ahlul haajati ñooñ aajo bi sukkunaa ca dëkk ga wala xallati ak njariñ la loolee ñu xubuslee bu fekkee ne ñañ ko xubusle dañ caa appante ci lor am na ci ñu ca loru lool am na ci ñoo xam si lor demewul noona mais naa seet kon ñu gën a loru ñu gën leen caa yaatal bu dee dëkk ñu gën leen caa yaatal bu dee njariñ la ñu seddoo ni ki lu ñu luyee muy génne alal ñu ci ëppale ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a loru waaye loolu day fekk nag ràññee lu toon ñooña niki dane woon rek way néew ñi doole daal laa xubusle kër gi wala mu ne dongay daal yi laa xubusle kër gi lu mel noonu nga xam ne ràññee lu leen moom mais naa seet ka nga xam ne moo gën a loru rek ñu gën koo caa yaatal gën ko caa ëppale ca dund ca bu dee dëkk bu dee njariñ wa man sàkkana ku xës dëkk nag falaa yaxruju du génn li xëy yi ngir kudul moom illa an yakkoona dara bu dafa nekk li asli xubusi ca ca saal xubus lega shartun ab sart fayam di kon dana wee neen ndegam da nga ne kër gi dama ko xubusle way ñàkk ñi wala dongay daar yi ak yu demee noonu xës dëkk rek kon jeex na kenn du ko sañ a génn ngir dugal keneen lu may nag yow mi nga xam ne yaaroon xubusle ci cosaan da nga ko waxoon ne ah ku dem ba lorootoo kat da ngay génn keneen ku loru moom dugg waaw su boobaa nag kon sart ba nga sart mooy wéy kon ku dem ba doylu lorootul kon wax ko ne ku génnal ku loru dugg
wala yu baaxu deful jaay alxubusu xubusle wa in xariba ak doonte ràpp na dafa tudd alxubus waaye aw lew te mooy suuf moo ko tax di wax lañ xubusle moom bu fekkee ne suuf la lu mu ràpp-ràpp duñu nangu ko jaay bu fekkee leneen lu lu bokkut ak suuf nag moom su demee ba neexatu te jariñoo manes na koy jaay buñ ko jaayee dañuy fam njëgg wutaat ca lu mel noona ndegam manes na caa am lu mel noona mbaa boog buñ amee leneen luñ ca mën a yokk ba mën a amaat lu mel noona baax na bu ñu seetee seet nag bañ ko jaayee njëgg mëne su ca amaat lu mel noona te amuñu luñ ca yokk say boo kon ñu sarax ko ña nga xam ne ñoom lañ xubasle woon jëmm ja ñum doon rek bu dee fuqaraaw yi ñu sarax leen ko ñu seddoo ak wàll gum doon rek noonu lay wéy
wayu baaxu def na jaay alfarasu faswa alxubusu wadi xubusle yàq la mu mbir moom dafa kalab kalab nag jàngoro la yoo xam ne bu dalee fas day mel fas dafa dof wayu juxalu te day fi def samanu hoo jëgam nga fii mislihi ci moroomam aw yuhaanu mbaa dee fi dimbadikoo bii ci njëgg fii ci moroomam nee na bu fekkee aw fas dañ koo defan ci yoon yàlla ni ki bëgguñ cee jihaat bu jekki-jekki lu mel ne xeet ndox dal ko mu ne kon dañ koy jaay ba noppi bu fekkee njëkk mën naa weneen fas ñu jënd ci weneen fas bu fekkee ne njëgg mënta amu fas waaye mënees na caa yokk leneen ba amaatu fas ba tey ñu wutaat aw fas bu fekkee mëneesu ko nag say boo jëndi koy ngànnaay mbaa di fexe ba def ko ci jihaat ndegam rek ci googu wàll la jëmul waxtu li fa wuteef na fil muhaawadati ca wortante ga muy weccee ga rek bi rab ci kër ga alxali bi ngay aji rab bi rab ci ak kër xëyri xali bi ngoog du aji rab dañoo wute nag ci bu fekkee dañ leen xubusle kër goo xam ne moom daa dem ba ràpp am ku leen mën a jox nag ngeen kër goo xam ne ràpput ngir ngeen weccee ko ko ngeen wecc ko ko ndax loolu sañes na ko wala sañesu ko am na wuute waaye wax ji gën a wër mooy sañesu ko ndax loolu daanaka ak jaay lay doon rek te dañu aaye woon jaay ga
warrahnu tayle jaisun aji dagan la tayle ayut mooy ngay leb
jubboonte ki nga xam ne moo lay lebal ci jox ko sa yëf mu téye ngir mu wane ne faaw nga fay ko boo ko fayee jëlaat sa yëf bu fekkee fayoo ko nag te yoon def ñu jaay loola kooka fayu ca ko defee ñu jaay ñu jaay loola nag kooka fayu ca borom bu desee ñu delloo la ko ni ko aadi wala fi daan defee ne nga xam ne boo masaa jaaxle bu ñëw tayle sa machine waxtu fayoo jotee te fayoo rek tayle ga day wel nga jekki-jekki ñàkk machine benn yoon te machine ba ab wëlëru lañ la lebaloon lu mel noonu yoon da koy bañ moom kay da koy jox li nga koy tayle rek mu téye mu lebal la buñ ci àggee te mënoo fay yoon seet nag bay jaay nag yoon ay jaay loola nag ñu fay la sa àq yow mi nga xam ne yaa leble woon la des na ñu delloo ko boroom okay wala yatimmu tey du mat illa bil xiyaasati ndara ci làq làq mooy jël maanaam bu la kenn lebee bor am lum la tayle na nga ko jël ci moom te sàkkal koy seere yu seere ne yow mii jël nga lim la tayle woon ñu tekki seen bët nga di ko jël ndax bu yàlla dogalee mu tayle la aw fas mbaa leneen ni ki ab rajo mbaa montor mbaa machine mbaa yooyu bu fekkee ne amul ay seere yu seere ne jël nga ko wér a wér mën naa am gàllankoor am mooy kooko faatu mbaa ñu sisir ko mu bari bor su boobaa doo mën a wax ne man kat damay téye lii ndax tayle woon na ma ko maa koy téye bu fayu ci waaye kenn du ko xëccoog man bu fekkee ne amutoon ay seere yu seere bu wér ne tayle na ko ba nga jël ko rek yaa borom bor yi yéene ci yemoo dañ koy jaay rek nga séddoon te ñoom sompoo ne ko mën laa matal waaye yow donc doo ko jagoo bu fekkoon wéroon su wéroon nag ne tayle woon na ko bu wér ay seere rek seen bët nag moom kon yaa am sañ-sañu ñu fay la ca ba noppi nag sa àq door a seet la ci des nag jëmale ci borom boole ci des wala tan fa du jëriñ ashahadatu seere sa fii xiyaasatihi ci làqam mooy ci jëlam rek illa bi muhaayanatil bayinati dara ci jàkkaarloog seere ya nee na kat seere ya seere ne nun daal dégg nañ ci làmmiñu diw mu wax ne tayle naa saa fas wi Modou Diagne mi la tayle naa saa montre bi Modou Diagne kese waaye seen bët tegu ci dañoo déggan rek wax ji ci làmmiñ loolu doy day aajowoo ñoom ñu seere ñu seere teg ci bët di jàkkaarloog lim lay tayle nga nangoo ko ci moom téye waaw kay loolu mooy baax bu dee da lay tayle oto ñu gis mu jox la oto bi jox la ceebi ja wa damaanul rahni gàddug tayle ga minal murtahini tukkiyee na ci aji tayle woo jax fii maa ci la nga xam ne yuxaabu def na mën a njublan xale yi ci moom jàppal nag ne arrahinu mooy aji tayle mooy ki jaaxle bay ñëw di leb jël yëfam joxe ndax ñu lebal ko al murtahil nag mooy aji tayle woo ja mooy kay leble bañ jox ko dara mu téye nga bañ a jaawale ñooy ñaari baat daa wax ne yow mi nga xam ne nag yaa leble sa yëf bañ jox la dara nga téye muy ak tayle xamal ne bu dee lu mën a njublan kat yaa koy gàddu booy lay boroom naa ko dañ koo sàcc mbaa daa réer mbaa nangam ñu la ah déedéet moo koy moom war na laa fay bor bi bor bi mu ko lebaloon waaye yow itam dal koy fay rek lim la tayle woon wala yadamanu du warlu nag maa la nga xam ne laa yuxaabu deful mën a fàddu xale yi ci moom loo xam nag mu neexuta njublu ak moom ni ki kër guñ ko tayle mbaa oto buñ ko tayle mbaa aw fas mbaa yu mel noonu moom bu ci dara xewee ñu xam ne yàlla rek waaye loolu kenn du kenn daa neexuta njublan des na ko ci yeex a topp naa ko fayal tayle gi xanaa ñu dem rek ba gis luñ ko war a topp topp ko ci rek waaye bu dul loolu de moom lu mel noonu daa neexut a njubla wa samaratu naxli meññatum tàndarma ya arrahni ma di ak tayle li raahini ñeel na aji tayle ja dama waxoon ñëw na arrahin mooy ki jaaxle bay leb ki nga xam ne nag moo ñëw leb la nga lebal ko mu tayle la ay tàndarma ay garabi tàndarma dañuy jàpp ne moom taar yee kese la la tayle waaye su amee meññat sañ naa waaxu sàkk meññat ma loolu nag nga teqale ko ci kon wa kasaalika naka noonu xallatu dóori njariñal kër ya buñ la taylee kër daal nga xam dañ cey fay luyaas ci kër ga boo bëggee fayu luyaas ba bokk ca tayle ga da koy leeral ne man kat du ma nangu ma tayle këru kese dañ may tayle waale li ñuy fay ci weer wu ne ci luyaas yi xam daa bokk ci tayle ga bu fekkee leeru loolu dañuy jàpp ne xottu kër képp xottu kër képp lañ la tayle du tee moom mi jaaxle ba ñëw tayle këram bu weer deexee rek mu ñëw fayu si ay liyaasam def ci poosam wal wala doom ja rëhnun ak tayle la maxal amati ànd ak jébbéer ba ak rëhni bari ak tayle tali duxoo mbir moom da koo juru ba ànd ak rëhni ci gannaaw tayle ga jamono yooyu jaam dafa amoon mu ne nag boo taylee ab jaam bu jigéen mu far am doom ci biir tayle ga dañuy jàpp ne kon doom ja itam bokkaal na ca tayle ga wala yakun du nekk maalul xam ci alal jaam rëhnan dik tayle illa bi shartin bare ci sart buñ lay tayle ab jaam boo ko néewul alalam kat ci tayle gi la bokk dañuy jàpp ne jëmmi jaam ba képp la la tayle waaye alali jaam ba bokkul ci tayle nga boo ko ci sarte nag mu daal ci bokk wamaa loo xam ne xalaka alkoona bi yedi aminu ci loxoy ku ñu wóolu foofu kon moom mina raahil tukkee na ci aji tayle ja maanaam bu fekkee da nga ko doon tayle dara ni ki montar mbaa rajo nga ne ko waa yow dama laa wóoluwut li may nangu daal mooy su ma la ko taylee ñu dem ca Ahmadou Ndiaye mee teg ko ci loxoom waaye yow du nekk say loxo mu ne la waaw man nangu naa daal lay lebal ngeen jël rajo ba ba montar ba teg ci loxoy Ahmadou Ndiaye bu Ahmadou Ndiaye ne rajo ba sàcc nañ ko ba montar ba nag ba daa réer nag ah yow mi leboon na nga war a fay sa bor ba noppi nag ñàkk la nga tayle woon waaw yow mi tayle woon rajo ba ak montar ba na nga ko woon a jox ki nga la ki la lebal da ngaa seet koo xam doyloo nga ko moom itam mu doyloo ko ngeen teg ko ci loxol kooka mu sànkoo nag ci loxol kooka waaw kon yow mi leboon tayli siif yaay ñàkk siif ya ko tayle woon tërutee nga fay bor ba wala xaari yétu ab le mu addaatu lu ñuy delloo la sopp nañ buñ la abbee nga able ngir yàlla waaye nag kookee ñu abal war naa góorgóorlu ci delloo si loolee mu abboon yàlla moom dana warlu maa la nga xam ne yuxaa bu def na mën a fàddu xale yi ci moom suñ ko abalee loo xam ne neex naa njublam di lay bu layee rek ñu ne ko fayal lu may nag mu am ay seere yu leer yoo xam ne ñoo seere ni moom kat sàgganu ci jublamu ci yàllaa ci dogal loola su boobaa moom kon du fay loola waaye bu dul loolu rek mu war a fay wala yettaman du warlu nag maa la nga xam ne laa yuxaa bu deful mën a fàddu deful mën a njublam xale yi ci moom min xam diñ ci ab jaam aw daabati wala daaba bu fekkee lañ ko abaloon nag moom neexut a njublam nit ki ab jaam lañ ko abaloon mbaa daaba yu demee noonu daal moom lu mu ci wax rek ñu gëm ko ba gis lu ko tebbi ndax loolu daal neexut a njublam moo tax illaa an yataxaat daal dani mooy fa jalgati lu may nag daa jalgati jalgati mooy wees fa mu war a yem anam yi wees fa nga war a yem daa bari lool nag mel ne mu àbban fas yu ne da ciy sëf nangam dem sëf ci lu ko ëpp mbaa da ci dem birëb sàngam dem weesu foofa yooyu yëpp ak jàggati la bi ci loolu amee moom kon bu daal di war a fay ndax moo wees fa mu war a yem bala ca xew xew ca wal moo daxu ka ñu dénk in xaala ne wax na ne raddatu delloo naa alwati xata ndénkaan la iléegi jëm ci yow suddi xakoon dëgg la lef ko dëgg la lef ko koo xam da nga koo doyloo ba dénk ko bu ngeen juumoo nga ne ko ana laal dénkoon mu ne la delloo naa la ko nga ne ko déedéet delluwoo ma ko de dañuy jàpp ni wax na dëgg delloo na la ko ndax yaa ko wóoluwoon ba dénk ko la nga ko wóolu woon rek lañuy jàpp ni moo nekk ci moom illaa an yakkoon dara bu dafa nekk nag xabadaxaa di ko ngëboon bi ishaadin ci seere loo lu may nag ba nga koy dénk da ngaa sàkkoon ni seere ni leen seere leen ne maa ngi dénk diw mi nangam moom nag mu sàggan ba bi mu ne delloo na la ko itam néewut baa koy delloo diw ak diw ñoo ko seere su boobaa yow yaa am dëgg ndax dañuy wax ne danga koy wax ne ko man baa lay dénk damaa wutal ay seere kon nag ba ngay delloo si da ngaa war a wut ay seere yu seere ne delloo nga ma li ma la dénkoon wa in qaala de wax na ne zahabat dénkaan la dem na fa huwa kon moom mu saddaxun ku ñu dëggalal la di ku li xaalin ci mépp mbir bu fekkee daa wax ne la ma dénkoon daa réer mbaa daa nàngam daa laata daal dañuy jàpp ni wax na dëgg rek ndax yaa ko doy la woon ba dénk ko ku ñaaw njort ci moom daal la ñuy waatloo waaye bu ñaaw njort ci moom ca la wax daal dañuy xam ne rek yaa ko doy la woon yaa ko doy la woon wal xaariyatu able nag moom laa yu saddaxu defu ko dëggalal fii xalaakihaa ci alkoom nga fii maa ci la nga xam ne yu xaabu def na mën a fàddu xale yi ci moom ak baamu rek la daa bëgg a wax ne bu fekkoon ne nag moom du woon ak dénkaane ak able la kooku moom lam abboon bu dee lu ñu mën a njublang bu layee rek ne ko fayal ñu ko waxe woon ci gannaaw léegi wa man taxat daa ko jalgati xalaa wadihatin ci ndénkaan damina xaa mu gàddu ko maanaam buñ la dénkee nag nga war a sàmm dénkaan la ba delloo ko ka la ko dénkoon ndax kóolute la nga war a sàmm ngir yàlla boo ci defee loo ci war a def nag mu jalgati ja dal di wara fay borom bokku na ca nak mu denk la nga dem denkani wat waaw te amul lenn ngantul tax nga diko denkani wat bu nak mu doy lol denk la nga dem diko denk keneen lolou jalgati nga ci dara xewé rek nga wara fay wa in kanat ndem nek na mom denkan la dana ñu redi ay dinar faraddaha te mu delo len fi surratiha ci seen kembugay thumma halaka top ñu alko fa xad ukhtulifa kon wuteex na fi tadminihi ci warlu lo yana bu fekke dafa nekkan wursu xaliss ci misal mu denk la ko def ko ci am bus ba ci am defukaay daal jël nga la mu la denkoon faj ca soxla waaye fexe nga boo ñëwaat lu tol noonu dellowaat ci mbuus ma ca fam ko defoon daal yàlla dogal na ñu sàcc ko mbaa mu jékki-jékki réer am na ñu ne faaw ñu fay loola ndax lu metti metti li la dénkoon bàyyi woo ko noona fajal fajal nga def say soxla ñen ñu ne déedéet kenn nga ci teg dara li moom yàllaa ko dogal rek ndax ba nga fajee soxla itam téewut wañu waat nga lu tol noona delloo wàcc defukaay ba kon sa jaan wàccoon na boobu lii moom dogal bee ñëw rek wa man ittajara ku yaxantu bi wadihatin ci ndénkaan fa daalika loolee makruh lu ñu sib la
li mu wax ne bu ñu la dénkee nga di ci jéem a yaxantu ngir am bénéfice lu ñu sib la aajowoo naa teqale ba mu yem ci sib rek mooy bu fekkee lañ la dénkoon day loo xam ne day lu ñuy peese mbaa ñu koy nat mbaa ñu koy wàññi nga xam ne delloo lu toll ne moom dana yomb te fekk yow it man nga sa bopp maanaam am nga am am boo xam ne bu loolee sànkoo itam fay boroom dana la yomb foofu rek lañ koy sibe waaye lañ la dénk bu fekkoon ne daa doon loo xam ne kenn du ko peese kenn du ko nat kenn du ko wàññi mel ne ab rajo wala montar wala xar wala bëy lu ñu tuddee mu xawam lañ koy tuddee kooku moom day araam nga da ca soppandiku ci genn wet te amoo ci ndigal moo xam na nga cay yaxantu ñi koy jaay ko bëgg ci bénéfice ak yu demee noonu moom day araam mutt la xam amul teqale bu fekkee ne nag moo la may ndigal moom ci lam la dénkoon jàpp ne ak lum la mën dénk rek bu la mayee ndigalul soppandiku ja rek am nga sañ sañu soppandiku ja kon soppandiku ca la mu la dénk ñetti anam la benn bu araam te mooy bu fekkee lam la dénk mayu la ca ndigal te it nekkul lu ñuy peese mbaa natt mbaa wàññi day lu mel ne xar bi ma waxoon kooku day araam moom nga def ca dara ci soppandiku te amoo ci ndigal ñaare bi mooy loola sax lu ñuy natt la baa wàññi baa peese nga xam ne delloo lu toll ne moom dana yomb waaye yow da ngaa ñàkk nga xam ne loolee bu laatoo loolee bu sankoo doo xam fooy jëm ba delloo boroom lu toll noona kooku itam day araam bi ñu sib nag mooy loola nekk lu ñu natt baa peese baa wàññi ni ki ay dërëm wala ay dinaar wala pepp wala ceeb wala ay nan yu mel noonu nga soppandiku ca nag waaye yow jekku nga sa bopp jekku gu toll ne bu loola sànko itam man ngaa delloo boroom lu toll noona kooka nag moom la ñuy sib rek yam ci teew nag buñ la dénkee nga jël dénkaan li ca kaw nas ba am ci bénéfice bénéfice moom yaa ko moom mooy wari fu bénéfice ba la ñeel na ko in kaanat dem nekkoon na xëy na ndikkee fekke lam la dénkoon day wurus wala xaalis nga doon jaay ko jënd ba am ci bénéfice kon yaa moom bénéfice ba waaye boo ci pertoon tam ki nga war a fay waaji moom lu mat li mu la dénkoon wa in baax ndem jaay na alwadi xata dénkaan la waxëye te fekk na moom xardun mi marchandise farab bu xaakoon boroomam mu xayarun ku ñu tànn loola fi samani ci jàpp njëgg aw xiimati wala xayma ja yow ma taxaat yi ci bisub jalgati wax bu la dénkoon loo xam ne du wurus du xaalis yow nga dem jaay ko kon bu fekkee dara wéegu ca fi nga wax ne ko bu la neexee tebbi jaay bi jël sa yëf mu des nag bu fekkee xas na wéy ba noppi moom jaay na ko te mëni su jotaat jëmm ja kon dañ koy wax ne ko seetal njëggam ko jaaye woon ak xayma ji nga xam ne moom la ko ñi ko xam di xaymaa lu ci ëpp rek ñu jox la ko te xam nga da ko kooku jaayee ak njëgam dëgg-dëgg ci ci bisoom ceeb defee lam ci war a def ci buñ ci buñ wooyee gaa yi ko xam ñu di ko seet mën naa appante lool ndax boo dee moom mën naa am rek mu néew doole am yi ci daal koy jaayee lu yomb yomb kon nag nees naa seet ñi ko xam ñu xayma loola bis boobee mu ca defee lam ci war a def fu xayma ja toll woon rek ñu fayloo waa ji ki ñu dénkoon xayma ja bu ko neexee mu bàyyi njëkk tañ fay ko xayma ja wa man wajada ko fekk luqatatan tor fal yu xarifa na ko xamle sanatan at bi mawdihim ci ab béréb yel jiw ba mën a yaakaar at taarifa njariñal xamle nga bi xaa ca moom nee na boo foree da nga ko war a yëgle fa nga defee ne fa la borom dëkk béréb boo yaakaar ne rek boo ko fa yëglee mu feeñ rek ah borom feeñ rek war nga ko faa yëgle da nga koy def diiru at nag xamle loolee nga for diiru at bala mu koy jar day fekk muy lu am solo waaye bu dee lu amul solo mel ne li mu ay dërëm yu néew boo ko xamlee ay fan rek mu doy bu dee lu ñàkk solo lool lool nag nga xam ne ku ko réerle sax daanaka xaw nga kuru sa laajte loola moom jërta xamle jërta yëgle naa ku réerle nangam bu dee lu ñu lekk sax mën nga koo daal di lekk ndegam xamoo boromam boo xamee borom nag la muy néew néew nga jox ko borom ba tey bu fekkee la nga for day loo xam ne day gaaw a yàqu mel ni aw yàpp kon bu fekkee mën nga koo jaay ndegam am na solo boo ko mënee jaay téyel borom jëkk borom feeñe nga jox ko ko baax na su fekkee neexuta jaay saye boo lekk ko fa in tàmmat ndem mat na sënatul at wala muy ëtti te dikkut laxaa ñeel por ba axadum kenn ba incha ndem soob na ko xaba saxaa mu téye ko ba tey muy por wa incha ndem soob na ko te saddaqa mu saraxi bihaa ca moom wa daminahaa te mu gàddu ko li rabbihaa ñeel boromam in jaa ndem dikk na nee na boo ko yëglee diiru at te borom feeñut bu la neexee téye ko rek di xaar borom ba xam dana ñëw dem déet bu la neexee itam saraxel ko sa bopp bu la neexee saraxel ko borom boo ko saraxeelee borom nag ak nga saraxel ko sa bopp ñooy moo dong du tee borom feeñee rek bu dee ñu fay ko nga fay ko kon xanaa kon say boo saraxel ko sa bopp waxasee boy saraxe xande kam borom feeñu da nga koy fay rek kon say boo soxal ko sa bopp ba tey nag baat bi jeexee bu la neexee jariñoo ko boo ko jariñoo it noonu la borom feeñu nga fay rek bi wa idin taf xandeem jariñoo na bi xaa ca moom it domina xaa mu gàddu ko wa in xalaka ndeem alku na xabla sanat njëkk at ma aw bax daa wala ca gannaaw at ma bi xëyri taxriikin ci lu yëngal lam yedd man xaa kon du ko waralo li nga faroon yore ko nag yàlla ñëw ci ak coobareem yow daal defoo ca dara la ca xew yàllaa ko ca def ci dogalam rek su boobaa kenn la ca topp dara dañ xam ne rek yàllaa ko dogal wa isaa xarafa dem xam na taalibuha aji sàkkoom ja alxifaasa gëmbukaay ga wal yu kaa ak takkoon ga axasaha mu jël ko bu fekkee ne li nga for am na ku mën a xàmmee la ko ëmb ak la ko takk loolu ñuy xut tolloole kon ku mën a wax loolee ñu for la ko takk ak la ko ëmb nam nam mel te juumu ca bu dee maa ko moom say boo jox ko ko wala yet xusu du jël arrajul waaja daalatul ibili aji réeri gëléem ya bi ne saxaraa yi ci àll ba gëléem moom daa ñeme ab xiif ñemem coono ndax nangu naa mar lool dir bu yàgg-yàgg te it lum lekk da ko yomb kon nag boo fekkee ci àll gëléem mu réer fa da nga koy bàyyi foofu rek xëy na borom ñëw ba dox bayam ca boo gën nga di ko yóbbu mool war du ko gis wala xooñeel na ko nag tax du shaati jàpp gàtt ba wa ak lu xaa akub lekkam in kaana dem nekk na bi fay faa ci am manding laa ximaarata bopp deetub dund fiyaa muy nekk ci moom boo fekkee ci àll bu àllee àllee ab gàtt boo xam dafa réer boo ko fa bàyyee itam rabi àll yaa koy lekk rek waaye yaakaaroo musk yaakaaroo mukk borom ñëw ba yem ja kon sañ nga ko ren di lekk waaye nag boo xasee jiital ba ñëw ci dëkkuwaay yi moom faaw nga laajte borom maanaam foofee jàll ba rek nga koy sañal ren de jëfandikoo waaye boo xasee jiital ba ñëw ci dëkkuwaay moom faaw nga laajte ko moom ba mën is tax naka ko alak mooy ku yàq rek xardan marchandise faxale yi war na ko xiimatuko xaymaam dañuy jàpp nag ne yëfi jàmbur moom tey ak ñàkk tayee ci yam xanaa boo tayee da nga ci am bàkkaar rek waaye jëmmi fay gi moom nga tey nga ñàkk tayee ci yam saa yu yàq yëfi jàmbur ñu la fayal yëfi jàmbur daal moom saa yoo ko yàqee yoon na la fayal bu la balul rek bu ko neexee na mu baal la waaye bu la balul rek nga tey nga ñàkk tey ci am da nga war a fay marchandise mu tudd xardan di see julu rek mu xawam maanaam la nga yàqal jaabur ba nekkut lu ñuy peese mbaa natt mbaa wàññi tey lu mel ne nga rey am xaram mbaa geneen juróom mbaa nga yàq rajawam mbaa montaram mbaa lu demee noonu kooku moom bu la baalut dañuy xayma wëlër wa nga fay ko lu tolloog xayma ja bu fekkee ne loolu dañ koy peese mbaa ñu koy natt mbaa ñu koy wàññi loola moom am lu toll ne moom day yomb su boobaa kon da nga koy delloo lu toll noona moom lay wax naa